coowal Baye Modou Fall alias Boy Djiné amatina ay développement yu bees xibaar bu tiis moo dal ci kenn ci ay complice am ci turu du Faye Abdou Faye nag nekkoon kenn ci complice Baye Modou Fall alias Boy Djiné nga xamante ni jamono yi nu weesu tegoon nañ leen loxo fële ca Missira ca zone euh, Tambacounda euh, moo daal di euh, xaru démb ci guddi ci commissariat central bu Ndakaaru ñu fàttali leen ñoom ñetti complice yi daam si Cheikh Ndiaye ak Abdou Faye dañu waroon jàkkaarloo ak procureur tey ji di àllarba waaye nag yàlla dogal na ni kenn ci ñoom ci turu Abdou Faye daal naa xaru kon maanaam jàkkaarloo geeg procureur sans moom et tamit ñu fàttali leen ni ñoom sax euh, dañu jàppoon ni war nañ mën a euh, bénéficier woon nañ sax euh, li ñuy tuddee retour de parquet waaye nag bi yoon nag moom Abdou fay du ci bokk kon ñoom ñaar la nar a doon coow li nag nar a gën continuer ci ay yeneen développement ñu di àtte justice bi fàttali ne booy jinne ñu koy tuddee Michael Scofield ci prisonniers yi ci Sénégal nga xamante ni rëcc na fukki yoon ak ñaar yàggul dara takk der yi daal teg loxo ba tey mbiru àtteem fan la nar a